rahmatulah barakatu xaaj Babacar delloo naa la nuyoo bi ak ziar. jaajëf oustaz yóbbalu bés bi. waaw xaaj Babacar yóbbal bu njëkk ci semaine bi dafay ñëw ci nit ku nga xamante ni kii dafa am lu ko jaaxal. ñor ko lool te mu bëgg yàlla defaral ko ko mu am jàmm lépp dox ci yoon. moo xam diggante nit fi muy séy la diggante jëkkër ak jabar. baay ak doom. diggante liggéeyukaay ak diggante dëkkandoo nga bëgg daal yàlla dellu si waat ko ba lépp nekk ci jàmm Babacar kooku dafay julli ñaari rakka dernier sujootam moo wax astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi ñetti yoon su paree ci loolu mu teg ci yaa aliman yaa aliman anta bi xaalina alim loolu lay wax ñetti yoon am na leneen lu ci des balaa muy siggi incha allah dinaa ko wax bu nu yàlla mayee suba ak jàmm incha allah